ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ah, di leen nuyoo fii ci Janatu Mahwa ah, di leen nuyu ci bisu màggalu Touba di leen nuyu ci kanam Cheikh Béthio Thioune cheikh bi ñu ngi lay nuyu. Papa Ngagne maa ngi lay fay. cheikh bi ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokku taalibe yi nuyoo ak mbokku téléspectateur télévision Futur Média. mbokki taalibe yi sëri Saliou def ci nun lu nu yëg ba tax maa mbooloo mi ma booleel lu nuy njaal bi nu lu ne maa nu caa yëkkati ak cañ cant jooyal ko Serigne Saliou ndax su du lépp day moom ndaxam noo yëg loolu waaye lu waay mën a yëg ak noo ko yëgee ak cant war na la waaw ndax ku ko xam war nga foo tollu sant yàlla te nun Serigne Saliou ndax danoo amub xam-xam ci ni bu nu ko santee sant nañu yàlla. jërëjëf ci cant googu ak nuyoo bi euh, cheikh bi dañuy daal di wéy ci waxtaan wi tàmbalee ko rek euh, kenn mënul wax euh, Serigne Cheikh Béthio Thioune te waxuloo Serigne Saliou Mbacké wax nga ko léegi moom nga tàmbalee sa nuyoo loolu daf ñuy delloo rek ci seen ci seen diggante. Euh, diggante bi yaakaar naa ni li ci ëmp nit ñi bareetul ndax euh, askan wi ñu ci bari gindi nga leen ci euh, donte wax nga ni li nga ciy wax nit ñi sax tuuti la ci li nga xam ni moo nekk mbóot mi waaye bëggoon naa ci li nga ci mën a wax waxtaane ko ci bisub tey bi bisu màggal moo ban moo la ci gën a marqué boo xam ne ci peggam la woon maanaam yéen a ko passé ensemble màggal Touba. li nga gën a fàttali li ci gën a ma njëkk a mooy keroog ba ma nee Béthio ba ne ko Mbàkke mun ma bis di tey na nga xam ne may yow yaay man jàpp ci yow muy dëgg dëgg jàpp ci man képp ko def dina ma noppal tey jii ak ëllëg du jëm te dina def lu ma neex booba day loolu mu niiral te loolu lim may neex neex neex mënumaa xam sax lu mu waaye law mel ni may moom rek. su màggal la la ko waxoon ni tey. déedéet doot bisu màggal doot bisu màggal. ci màggal lan nga ci gën a fàttaliku la gën a marqué ci seen diggante. Eh, xanaa Serigne Saliou danaa def bisu saa su màggal ñëwee may defar samay nag. samay giléem samay gàtt di togg ay ñam ay bernde ànd ak samay taalube ñuy yenu bool yi keesu pob yi ak la nga xam ni moom la nu yëgoon ci joo jamono ngir defal ko sëriñ Saaliwu bu du daan dem ak lox la daan def ñi yenu ay bool ñi yenu keesi pom ñi yenu lépp lu nu am dan da laa gis ñi yor seeni paaka ñi yor ay jaasi xeetu objet bu ne mooy xeet wu ne daan nu ko jël bu di dem ci Sëriñ Saaliwu di ko siyaare ji bi su màggal sunu keesi pomme keesi surance xeeti doom yëpp lan ko daan yóbbul keroog ba ma yeggee ba ma agsee mun ma becco ma ne ko màkke mu ni ma lii ngay def màggal gu jot nga di ko indi ci kër gi lu baax la waaye fii ci kër gi daa am ñoo xam ne ñoo fi egsi waaye lépp ci mbooloo bi mu ngi ci sancaan yi ba ma wootee ñu ñëw dëkk si Touba ku ko mën ak ku ko mënul dangaa ñëw dëkk si am na ñoo xam ne amuñu woon doole ñëw ba ni ñu dëkkee rek wane na ni amuñu woon man-mani ñëw gëm ak fas yéene jëfe sama diggal moo tax ñu ñëw kon nag léegi bu màggal jotatee dee ko toggi sa kër am nga ñu ko mën a togg te muy sell lii dëdul ak taalibe dee nañu di damoo la nga jëf mën na caa indi sax li ñuy wax uj bu mën naa yàq jëf ci kanam sunu borom batax na ma toog naa la juddi la wala nàngam la da du am solo waaye nag mbooloo maa ngi seetaan man daal noon na ma ak cet sax nag matul a tasuufeel mu tulla mbappat ak cant dañu ko yëkkati ca kaw li ma mën a yëkkati daal mooy ak mu jot la ma defoon ak ma ca tegu da koy ëpp ndax di firi loolu yi yàlla sunu borom wax ci alxuraan ne ko sant ma dolli la aaya la boo xam ni yàlla di ci gi ñaar yoon dani billaahi ku sant billaahi ma dolli la man nag aaye boobu addinaa ngi xool aaye bi moom àddina xam na ni aaye bi firiku de sama sama jëm maag sama njaboot gi léegi cheikh bi wax nga ma wax nga ma màggal bi nga xam ni marqué na la ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci sëriñ bi ci Zahir mën nañu jàpp ni làqu na nan nga dunde màggal bi jëkk boo xam ni moom wuute na ko nan nga ko dunde ndax wéetoon nga ak nan nga ko dunde nan nga ñu ko mën a expliquer waaw màggal gu jëkk yëgoon naa weetaay bu nu waxantee dëgg rek waaye li ma dimbali booy xam-xam bi ma am xam-xamu biir bi huit lay tàmbali ah laajal sama waa kër nu dey bu nu yewoo rek nekk ci waajtaay wi huit noo ngi suñu naani kafe waaw waaw noo ngi noo ngi tàmbali suñuy bernde ah, ñiy togg ñu nga ca waañ wa ñu ngay sël noo ngi defar suñuy nag suñuy gàtt déet déet gàtt yi ak nag yi ci guddi lan koy daal di defar ndax dégam huit heures suba la màggal gi tàmbali bëgg na nañu balaa midi lépp sotti ñu xéewlu berde yi génn ci ci wax nga ma wax nga ma tam ni wetoon nga waaye am na xam-xamu biir boo xam ne ñàkkul lu mu la wax xam-xamu biir boobu lan la la wax ah xam-xam bi mooy Sëriñ Tuubaa ko wax duma kuy faatu loolu nag sàmba jorondaay yëpp nu ñu ko xam sëy saaliwu mba dimbali ba ba xam ne Sëriñ Tuubaa du kuy faatu du kuy faatu ndax man de fii ma toll bu ma noonoon na dugg ci lu ma xamul wala lu mu duma du ma ni kat moo ma gis ko jaaral waaye sama yaram wii am na yu ci raf yoo xam ni bu ma jëmee ci lu neexul Serigne Saliou du ma wéy danaa ko yëg sama yaram moo xam ci ukki bët lay doon moo xam ci wetu ndijoor moo xam ci wetu càmmoñ ay signe la du tee léeg-léeg nga tëdd ba guddi yàlla dogal mu wóor la di ki nga gis du keneen booba ndax bi mu fi ne ci saayir tuub naa ko bi mu fi ne rek laa war a wax ci bëti nit ñi nga xam ni xamuñu ni saayir si ak bàtti na yem ba saayir ak bàtti dama yem du fi jóg ci saayir du fi jóg ci bàttin yooyu jamono boobu mu ngi mu ngi li ñëpp naa mu ngi fi booba lu ma bu ma bëggee def lu ko naqari dama koy xam Serigne Saliou daaw ma may ma dox ab sef ci lu ko neexul a ah, léeg ni muy dale ñu bari léeg-léeg ah nga dégg kàddu doo gis jëbu sax walla boog da nga koy gént nga dégg kàddu te doo nelaw gëmëntuwoo sax nga dégg kàddu woo xam mel ni ku koy jëneer. déet déet sax. kaddu ngay dégg audiblement mu wax ak yow la nga bëggoon def nga teg ko suuf. dëgg mbir mu xóot. la bàyyi euh, sëñ bi ndax màggal gi fi sa yaram sutante woon te yàggul dara bokkul ci màggal bu la marqué. ndax ah! boobu bari woon na coow. xam euh, nga ba ñu bari ne gisuñu la ci màggal googu wuute lool ak màggal gi nga xam ni fekkee nañ ko ren. waaw aw yaram day day tooy di wow ñëppay tawat waaye ba ma dalee xamoon naa ni as cam moom faaw muy tawat di waaye wóoroon na ma ni du tawat su may wàññi dara dara ndax moom moo ma waxoon ñaata at laay tudd ci kaw suuf loolu taxoon na bu ma tawatee dinaa yëg tawat si dinaa dem faju ji waaye bu subaa yëngal lu toll ni DDP ndax xam naa ni man jóge guma fi man se man Serigne Saliou Serigne Saliou lu ma wax yemuma ci gëm ndax gëm daa am xam am lu ma wax xam naa ni loolee mooy li am te moo ma wax ñaata at lay dund. ñaata la wax ci njaal benn. ñaata at tuuti rek. Mhm. Serigne Saliou. na ko ñëpp jàpp de ndax duma ko ragal a wax Serigne Saliou bi may wax ñaata at laay dund. ci kaamili alxuraan la ko doon waññi dana koo tegale di tegale di tegale ni ma lii ñaata la ma ne ko lii day mbay ñeen fukk la ak juróom-ñett mu daa tegaat beneen taa ci wet bi di wàññi di wàññi di wàññi ba ma fu ma yem mun ma lii ñaata la ma wax ko ko ma boo leen boolee ñaata la ma ne ko mbàkkee nangami at la mun na loolu yi di ko dund ci kaw suuf sëñ Saliou ba fii mu ne maa ngi koy feccal moo yow man defe nga ni jàpp nga ni man yëg naa man ni sëriñ Saliou jóge na fi. kon yaa ngi koy daajal. dégg loolu ma ñëw. waaye bàyyi ngañ bàyyi ngañ moo bàyyi ngañ lii sëriñ Saliou def ak man. ni Serigne Saliou nekkatu fi Serigne Saliou du fi jóg mooy Serigne Touba. Serigne Touba ko waxal. Serigne barke Serigne Touba lim xaadatil ujooru wal ma Saliou bi tey wal jës bi wa inni Saliou. am na am na ñu koy firee neneen. ah ñi koy firee neneen. man li ba Serigne Saliou wax te Sénégal gii de doo fi dégg. ku mën a kontar waxi Serigne Saliou doo ko fi dégg Serigne Saliou sut ñëpp du moroom kenn dama ne bàyyi gañ doo dégg ku ma tontu de ni ma loolu amul doo ko dégg de fii ci Sénégal doo dégg sama wax jii nga jàppe ma ni damay parloo ba tax nga dégg ci réew mii ku wax ci rajo walla feneen ni waa ji li dëgg loo ko dégg de ku ko wax xam waaye léegi cuun bi ñuy njëkk a waxtaan danga ni ma am na ñoo xam ne xolu kañaan mën na leen a jàpp ba ñu firee bay boobu neneen looloo am déggoo li ma ma tudd tur waaye ay sénégalais lañu am na ku wax ci rajo bi leen xaa dëkkal ujjóorul ma saaliwu bi tey wal jës bi wa inni saaliwu am na koo firee neneen jànkatu arab bu rëy la ci réew mi bu ñëpp xam waaw waaye man ba ma ko déggee ree damaa jàpp waaw ma xam ni li wax ci keñaanu doomi soxna moo am man jànguma baax xaw ma siin biñ ko waxee firil ma ko dama koo jëli moom bii moo ni sëriñ Saaliw Mbàkke sëñ Béthio mii de jaaxal na ma moom day bu wax ak yow day mel ni ku jàng lool te moom jàngul ma di la bëgg a laaj Mbàkke lool nu mu deme mu ngi nii on peut lui donner la parole tout de waa Mbàkke loolu nu mu demee sëriñ Saaliw ni ko waa yow ku la jàngal mu ne ko maa ngi jàngee ci mufti sàngam maa ngi jànge université sangam maa ngi jànge fii maa ngi jànge faa Serigne Saliou ni ko yow de da ngaa bokkul ak béccu ab xam-xam yow nit la jàngal béccu nag yàllaa ko jàngal ngi nii passé. On avait, on a discuté beaucoup sur euh, ce verbe l'inqadatul ujur wal masalih bit-tayy wal jazb wa an-nisalih. Et un jour, on était chez Serigne Saliou. Et j'ai dit à Serigne Saliou, le cheikh, il affirme toujours que ce verbe l'inqadatul ujur wal masalih bit-tayy wal jazb wa an-nisalih que Serigne Touba signifie dans ce vers explicitement qu'il est euh, Serigne Saliou, qu'il est vous. Et il m'a demandé ce que j'en pense dans la littéralement en langue arabe, est-ce que ça peut euh, correspondre? Et je lui ai dit que il n'y a rien qui peut contredire en langue arabe si l'intention est telle de l'auteur parce que inni salih ça veut dire je suis un bienfaiteur littéralement le vers l'inqadatul ujur wal masalih m'a été accordé les salaires et les récompenses bitayi wal jadbi par l'attraction et la contraction du temps l'attraction divine et la contraction du temps en, en, sans effort wa inni salah et je suis un bienfaiteur en langue arabe mais l'auteur peut signifier wa inni salah il peut signifier sini salut c'est à la discrétion de l'auteur donc ça ne peut ça ne contredit pas linguistiquement je dis à ah, sini salut comme ça je dis mais sincèrement tous ceux qui sont avec le cheikh ils n'hésitent pas à endosser la l'explication du cheikh on pense que vous êtes effectivement sur le Alors Sirine Saliou, il a demandé à Chouaïbou Cissé de lui apporter un livre. Il a apporté un livre, Chouaïbou Cissé, il a pris le livre, il a ouvert directement, sans consulter. Il a ouvert directement. Et il m'a dit, lis. À haute voix. J'ai commencé à lire. Celui qui lit ces lignes ou les transcrit, même à partir d'une copie, et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Alors quand c'était en arabe, hein? Alors quand j'ai fini, Cyril Saliou dit ah ça c'est un miracle. Parce que ce n'est pas ces mots que je voulais te signifier, mais ces mots-là explicitent mieux ce que je voulais te signifier. Et il a appelé Chahibou Sylla dit d'apporter l'autre livre il a apporté l'autre livre il a ouvert sans consulter il a ouvert il m'a dit lii c'était un autre un autre vers qaadat li dunya al wa bil masalihi u'inu saliha le monde m'a accordé ses bienfaits et par ses bienfaits j'assiste Salah ah j'ai alors il n'y a plus d'équivoque le c'était le mardi le samedi Cheikh a fait un, euh, euh, un chant à Mbour devant la maison de Serigne Saliou et il a relaté cela et il m'a donné la parole pour pour parler de cela comme il a fait aujourd'hui alors j'ai expliqué exactement comment ça s'est passé j'ai dit donc Serigne Saliou a dit subtilement que celui qui ne comprend pas cela et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Il aura raté sa chance. Et, on est retourné chez Céline Salou le mardi et je lui ai raconté. Je dis, dans le chant, le chef m'a donné la parole et j'ai expliqué comme ça s'est passé et j'ai dit que, explicitement, donc vous dites que celui qui n'a pas assimilé cela et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui demain. Alors Céline Salou dit, oui oui attendez attendez pas là il lui a demandé il a demandé à Serigne Saliou lui-même lui qui va vous le dire parce que quand il n'a pas compris mes propos que je tenais là et ailleurs ça l'a étonné lui qui a appris le Coran et l'arabe qui était arabe comment se fait-il que Cheikh Béthio avance des pensées alors que il n'a pas fait le Coran ni l'arabe qu'est-ce qu'il t'a répondu c'était à, à, à Helcom <laughs> non une autre fois on était à Helcom parce que avec le Cheikh je passais des nuits des fois jusqu'à 5 heures du matin on parlait de ces réalités parce que ces réalités sont des réalités métaphysiques si on les interprète ou on les comprend sur le plan théologique il y a équivoque parce que la théologie a des normes dans le tawhid Allah le prophète l'être humain le monde c'est des réalités distinctes et donc on ne peut pas interpréter cela ni comprendre par la théologie la théologie a ses normes mais sur le plan métaphysique il y a unicité il y a qu'Allah Allah est la réalité unique donc tout ce qu'on voit ce sont des formes manifestations des Donc c'est un autre plan métaphysique. Moi, avec le cher, on parlait sur ce plan métaphysique et le cher comprenait des choses que les grands maîtres comme Ibn Arabi, comme expliquaient. Et le cher, quand on parlait, il me disait, ah, Cyril Saliou l'autre jour m'a dit ceci, Et il résout très facilement, sans difficulté, toutes ces euh, énigmes, si on veut dire, qui ont, qui ont fait obstacle à, à, à l'intelligence de beaucoup de savants, de ce, beaucoup de savants théologiens et même varis qui jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ces choses. Alors que les chers les comprenaient facilement. J'étais étonné. J'ai dit à Céline Saliou, j'ai dit, il m'arrive de parler avec le cher de sujets très subtils de la métaphysique ou même les plus grands savants Et le cher, très facilement, il, il les élucide. Il me dit, voilà, j'ai rêvé ceci, Céline Alors, euh, Stéphane Salou, il m'a dit, tu sais, celui qui puise son savoir chez les humains n'est pas comme celui qui puise son savoir chez le divin. yaakaar naa seede yooyu am na solo ndax ni nga ko waxee noonu la ko olof dafay wax ni lu amul seede baaxul yaakaar naa seede bii nga xam ni moo ko seede woon ci kanam Saliou seede waat ko ci sa kanam am na solo lool ci euh, émission bi nga xam ni def nañ ko euh, ci biir wax ji da nga ma wax ni ma ci sa xam-xamu biir gis nga ni sëriñ bi du fi jóge dañu mës a def benn émission man ak yow nga ni ma ci élection yi ñu dëgmal damay xaar ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Saliou ah, foofu nga toll ba tey di ko xaar ah, waaw moom daf maa wóor man ne lu Serigne Saliou waxul xalif général des Mourides du ko wax ndax xalif général des Mourides moo fi toogal Serigne Touba te Serigne Touba mooy Serigne Saliou te Serigne Touba du bàyyil du ko fi toogal muy wax lu waxul lu xalif général des Mourides wax départ de Serigne Touba ko wax. man murit laa te it ba ma dee murit it dañ maa dimbali ma amub xam-xam ci wet mhm. jàpp naa ni Serigne Touba ca caa egg te déggoo xalif général bi joxe ci benn ndigal bu boobaa ban taxawaay nga ci am commission gouvernementale d'État ñi xamul dara naa ab sëriñ du politique xamuñu dara yonent bi mooy sëriñ sëriñ si xandegam moom moo yor ab état moo ni ñu mën a yor ab état xanaa kay politique daa am ab politique. Ah ci suñu histoire politique sax. li ñu xam ni xam nañ ko mooy politique moom dafa yàgg lëkkaloo ak kilifa diine yi la ko dale ca Senghor jaar ba ci ñi fi egsi yëpp gis nañu ay relation yoo xam ni daf ciy nekk. Ah, waaw ndax waajal ko moo taxoon ñoom ñëpp nga ne leen ñu pare seen ay carte LCS. waaw ñoom taalibe yëpp. dama ni ñi amul baat ci taalibe yi ñi amul ay taalibe ñooy taxaw fee naa am sëriñ du wote xamuñu dara ñooñu ku leen topp kenn du leen topp. ab sëriñ yor ay taalibe sëriñ bi di citoyen taalibe yi di citoyen nu jëm ci loo xam ne daa soxal réew mi sëriñ bi du wax bu ko neexee waaye bu apprécier maanaam moom ci boppam bu teew loo xam ne wax da ko warul ndax njariñ jóg du ci jóge bu ko neexee du wax waaw dëgg la mba dëgg la Thioune waaw euh, sëñ bi euh, xam nga bu ñu sukkandikoo ci sab limu taalibe egg ci onze millions de taalibe yow kat Thioune yaakaar naa ni ko àndal mooy falu na nag ñoo xam ni xam nañu limub taalibe yi xam nañ sa taxawaay kenn ku ci ne mi ngi xool nu mu lay jegee eh, du ma tudd ay tur waaye bari na ñoo xam ni recevoir nga leen am na lu ngeen wax ak ñoom eh, ci ñooñu ñëpp gisoo ci kenn koo xam ni eh, doy na la. bu ma doyee du ma la ko wax te du ma ko wax ndax xalif général de mourides joxe gul ndigal moo bu ma doyee te man sam gis-gis yëggul fa bosam commencé wax ji dégg nga ko kat bi mu waxee àddina sëpp dégg responsabilité ah bu waxul ma jël samay responsabilité waaye bu waxee lu ma laay def du ma wax kenn nag bu boobaa la may def maa ngi di jàll di nekk mu wax bu waxee maa maag saa mbooloo noonu ay murit la lu wax rek la ñuy def bu waxul ah bu waxul nag nous sommes libres de nous déterminer et de faire une option sur les situations précises qui s'installe au Sénégal alors nous prendrons nos responsabilités. kon daal amoon 2007 ci sa lëkkaloo ak président wadd mën nañ ko njort wala ñu bañ ko njort. waaye loolu du ma la ko wax yow da ngaa bëgg nag ma ni dut baaraam ay waaye bu waree am am. je ne jette l'anathème sur personne. Il est certain que vous voulez faire cas d'un différent que j'ai eu avec le président Wade. mais li wóor daal neutre doo ko def. man. Touba hmm. neutre. déet déet fu Serigne Touba waa kër Serigne Touba aw faay aw du ma neutre dama naa fànn. waaye bu boobaa bu boobaa. <coughs> Ah, ne fu Serigne waa kër si Touba aw sunu xalifa bii di Serigne Touba ci kaw suuf fu mu awul du ma aw naa fii maaw fa bu dee cel c'est-à-dire nee na ah lu neex ay na def bu boobaa nag la ma neex lay def waaye kenn du xamal dara balaa booba kenn du xamal dara balaa booba maa ngi ni cel waaw sëñ bi eh, ñi ngi jëm ci échéance gis nga ko eh, mu nekk échéance yoo xam ni xaw na violence bi commencé na eh, dégg nga fii nit boo xam ni ñàkk na ci bakkanam ni dem na ci kaso muy la xewoon ca Sacré Cœur Mermoz ñu gis ni tey bu ñu sukkandikoo ci seen limu taalibe xam nañu ne kenn ëpp la responsabilité li ñu dëgmal ëllëg lan ngay wax taalibe yi ci wàllu violence yan message de paix nga ci am ak jàmm. dama ni lu ma ci ngaan li xew sama yoon da cee newul. ku nekk ak la nga xalaat ba tax ngay def la nga xalaat nous somm dans un pays de liberté ku am loo naqari ban nga koo wane ku yàlla dogal sa bakkan rocc loolu mbir yàlla la du ma du ma amul kenn ku ma ne wa ku ma naa waroo ko a def lii dog lii am ay dogal la yàllaa koy dogal ay dogal na ab jaam tuut na ci jéeg ko apprécier xanaa nga di jullit xam ni lu am yàlla lu yàlla dogal asam tuut na ci jéem ko teggi waaye kii am dëgg ki amul dëgg loola sama yoon nekku ca képp koo xam ne am nga option bu la doy nga di ko dex ba yàlla faat la ca boo tëddoon ni nawet faatu dama lire nii ci benn site internet yaakaar naa mi ngi koy lire ñu ne Cheikh Béthio Thioune a di tout personne qui cherche à brûler ce pays sera brûlée. non non je ne l'ai jamais dit non loolu waxuma ko man ab murid laa sëñ Touba biñ ko yóbboo géej exemple Sénégal Français, les Sénégalais sont devenus ce qu'ils sont. Nous sommes des amis. Il n'existe plus racisme au Sénégal entre les Français et nous. Nous sommes comme un même peuple. Nous travaillons la main dans la main. Mais alors, dóor watti jaar ba jàll ma lu muy jëriñ ma ni je me suis adressé aux Noirs d'Amérique, à Harlem. J'ai dit, il faut dépasser. ci olof olof. waaw ma ni. Mhm. rek waay gaañ yi yéen Noirs yi. doo nekk ba jaan dem ba jàll nga jëlu yet di ca watti doo dama ni ñii juboo leen ànd leen. waaye li nga xam ni mooy ay position te nga di ko tëral ci ab der naa kii daa ñuul kii daa weex kii daa jaune loolu amul solo nanu fàtte le passé négatif li nga xam ni moo wees te dara lu rafet newu ca te mënatoo caa dara def dara na ko fàtte senegal peuple Sénégal dafa jox exemple dëgg la waaw sëñ bi bu ma la déggee ci question bi ma la posé ci violence bi da nga ma wax ni ma loolu da nga ciy maandu da maandu ci violence boobu donte bakkan rot na ci dangay jàpp ni dogalu yàlla rek la waaye li xam ni moom moo ci jaaxal nit ñi mooy violence bu amee ci réew mën na jur leneen loo xam ni mën na law ba yegg ci ay nit yoo xam ne xëy na duñ ko yaakaare loolu moo taxoon rek ma doon xaar message yu jàmm buy jóge ci yow. ngir ñu dalal ci xel yi ak dara. Baye Gagne man murid laa. Serigne Touba n'a pas prôné la xalimaam la doon xeexe ak nasaraat bi ba tëral ko man taalibe bi Serigne Touba laa man lu ma wax kenn demal xeexi déedéet du ma kooku man man ci jàmm laa xam ci jàmm laa ne ak salaam man lu ay ne nekkuma ca ah ki si pit nag si frot di si for du mooy si ku jàpp ne dangaa war a dal sama kaw comme Nader. ah yow kenn waxul sa kuy dal ci sa kaw. loolu loolu xalaatu ko loolu du taab de. Mm-hmm. déedéet ndax nag ah bañ a xeex kat baax na. waa di bokkat nag amu ci yoon ku dalal sama kaw xam ma ne du dal ci kaw kenn waaye jaay jaay ku dal ci sama kaw ki si frot si pig yow Thioune kenn du dal ci sa kaw. yow moom taxuloo ñuy wax xëy na kay dañuy wax euh, ci euh, ci ci ci réew mi la ñuy wax maanaam ñu gis ni ci wàllu politique dinañu gis leader yi kenn ku ci ne euh, taxaw ci wàllu doole ak leneen ngir won ko sa moroom loolu mën a indi fitna loolu lay xaar rek message bi waaye yow kenn xalaatu la dal ci sa kaw wax dëgg yàlla. man de du jàngal lu du xeex xuloo waaye du ñuy ragal de xam dal ci suñu koo xam. cuun man kay waxuma la wax dëgg yàlla. waaw waaw déedéet dama lay wax principe laa lay dégager. non dafa da nga dégg ñu bëgg a dal ci sa kaw wala dara. déedéet man kenn da koo ñime. alors laa xalaat de. waaye man man ku waat neen ba sey ba nga ba ko man man ku ñime dal sama kaw man kenn Serigne Saliou sàkkul ci kaw suuf ku ñime dal sama kaw fii mu ne ku ko def ñu moxoñ la. gars yi duñu tooñ saa taalube yii duñu tooñ de waaye nag ki si frot si pig euh, dégg sa message mu jëm ci euh, maanaam élection yi wax nga ni buñ ca yeggee dinga nga doo neutre maanaam doo ci wane ak maandu di nga ci wane ak pété di nga ci wane ak péete bu fekkente ni sa candidature taxawuloo ko ndax wax nga ni sañ nga ko def euh, wax nga itam lu jëm ci violence bi nee nga da nga ci maandu waaye xanaa war nga ci mën a am xalaat dégg nga ni élection la yoo xam ni euh, ci coow yi ci am yëpp ci candidature président Abdoulaye Wade mën na indi fitna ëllëg loolu xanaa war nga ci mën a am position bu claire boo xam nit ñi nañ ko dégg. Euh, coow li am fi mu ne ci ay candidature rek lu dul candidature man damaa yitteelul man murid laa bu tàggoog wax ji ma la ne ko ah citoyen laa être mouride, d'abord, c'est sur un plan spirituel. Mais la spiritualité n'exclut pas la vie pratique et sociale. Ça, c'est un man ci sa biir wax toujours damay dégg ni daal euh, ku ko def ñu ma xoñe la kenn ñemewu la ko jëmale te man wax dëgg yàlla question bi xuloo may wax parce que xam naa ni loolu nit xalaatu ko gis nañ sa maandu gis nañ sa jàmbure ci ci champ politique bi waaye xalaat bi man dama bëgg rek nga yaatal ko ci askan wi nga xam ne ñoom ñu ngi lay déglu te mu bari ci waaw maandu gi moo ma yóbbu moo ma yóbbu ci bañ a wax leneen lu dul lii ma xalaat di sama xalaat féete ah, waaw te bay gañ waaye yàggatul yàggatul dëgg waaye yàggatul man ndigal ndigal la may def loo <laughs> bu maamul ndigal waaye lu samam xel may lu ma samam xel may bay gañ man administrateur civil la principale de classe exceptionnelle bay gañ man ñii fi ne di xuloo kër mu tuddati mais kenn dàquma cee jàng la ma la ma expérience ba am sax amuñu ko te waaye Youssou wax na je ne man dey je ne blâmerai jamais Youssou te xëy ku jàngul loolu tubaab ñu bëgg laa jàkkaar looloo ak réew bi nga wax la Youssou wax jàmbaar de. sëñ bi xanaa da nga ànd ak Youssou. déet ànduma kenn. damaa dégg nga koy tudd lu bari ci sa biir yu wax. mais Youssou bu tuddul mais tooñ Youssou ma tudd. yu soo jël télévision bi boole maag moom ma dem ba Amérique jóge fa wër te loolu amul woon obligation ba tax na dee suba jënd ma waaye nag bor laa yooyu su mënuma koo ñàkk tuuti maa ngi koy sant ci kanam àddina waaye loolu bu mu tax ba nga jàpp ni man damay jàppale kii wala keneen man murit laa yoonu murit ku lu àndu ak yow jërëjëf Thioune ngi lay gërëm sant bu baax jërëjëf mbokk yi kon waxtaan bu ñu doon seq ak euh, Cheikh Béthio Thioune euh, kontaan nañu trop ci euh, waxtaan bi hmm. cheikh bi yow sëriñ Saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko jaam sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko ma suñu dégg mayi teraanga borom we tey sëriñ Saaliw sëriñ kenn masa àndeeli teral ko sab jàngi téere mokkal tarbiyoo ki la may li set am ka seet saalio jàngi téere mokkal tarbiyoo ki la may li set yanzu cant ne wai na sarin sarewa rabuwa kenan manulu ba rabu ya kudir jam yanzu cant ne wai na sarin sarewa xamuñu woon jëmam ji bi mu la seexale yee xel mi seex saalo daag moom kenn mas ta ande ni taw ko gaañi daaroom be xayam ga muy toog yëpp nga moom moom seex saali wa mel na ni sëriñ ji bilaay mel na ni euh, euh, xalifa bi yaakaar naa ni mi ngi ñëw